ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo li xewoon fële ci gaarasu daaru démb ndigal li nga xam ne si ñun taxaa joxe na ko si Touba jox ko Baye ñi ñu commencé woon ko depuis dimanche bi passé dem nag li jotoon na xew fële ca gaarasu daaru muy waa ji njàppoon di ko wat euh, ba li jot see am euh, ba tax na askan bi ak Baye xew xaw kii ndaxte ñu bëri ñoo ngi di wax ne lii di yoon lii wartu am ndaxte doon na loo xam ne lu ñaaw lool Euh, donte ndigal tamit ndigal la ndaxte ndigal moom jëfe la jëfe la sant te dëkk bi ndigal moo ko tënku kon nag euh, li sëñ bi digle dañ ko war a def waaye yaakaar naa ni lii dafa doon loo xam ne ëpp na mm, xëy na tamit li ko waral euh, da di erreur ñàkk mais yaakaar naa ni bu fekkee ne lii lii lan nii lan nar a doxalee wala nii la war a kii dina dina xaw a doy waar lool ndaxte buñ ni waa ji te témoignage mbir mi ne nii la amee. yaakaar naa ni lu doy waar ndaxte ñoom ñi def mbir yi xaw ma nag yaakaar naa ni war nañoo war nañoo yor euh, tondeuse maanaam tondeuse bi nga xam ne sans fil lay doon kuñ jàpp te doxaloo ndigal liñ la wax maanaam dégaraat nga wata wala leneen ñu wotee la tondeuse paaka ay paaka wala leneen waa di la wax ne bu fekkee ne euh, ku bees nga seen bi nga abonné te activé cloche notification bi bépp vidéo bu ñu dool nga di ko am